roof wujje bay wujje néeg peccor goy sax dañuy wujjante parce que ñoom màggal la ñuy changé seen matériel yépp ci la ñuy jënd or ci la ñuy def lépp mais li ko lal mooy berndeelal doomu ya aadama yi yi la fekk si dëgg la ma damaa bëgg gas gat bu ñëwee ci kër day xool mhm. bul ko may lu mu yóbbu mhm. fexeel ba kenn du la yóbbu fexeel ba sëfee gani nga nekkal berndeel leen te taxawu leen ni nga leen war a taxawoo ndax yow lañ fekk si. Mhm. te sëñ bi dañ ne wàcc leen lal yi. Mhm. wàcc leen lal jox ko kan. génn leen léegi dëgg la. te ku nekk xam nañ Touba ñun ñépp bu màggal jógee jubee mënoo ñoo wax lu ñu dégg lu dul ilaa Touba. Mhm. te gari tamit bàyyi baa doole gi ñu nekke am na ñoo xamante ni bu la dalalee nga découragé. dëgg la ay xale yu ndaw damaa dem 11 jours ndeysaan gàmmo di Mm-hmm. Tiwaawan laa dem non oh, ni may ni ma ànd ñëpp ay tijaan lañ. dëgg la fi mu doon may dem waxtu laay gaar yooyu ñëpp laay yóbbu. des yooyu bokk benn dal bu ñuy nekk suñu pare ñu àndaat ñëw. Mm-hmm. maa leen di si jaar baax a baax ñoom Marème Ndaw. Mm-hmm. mais bi ñu ma yóbboo gàmmu Tiwaawan ma tëdd nii ba ay ba ay dix heures onze heures xale jigéen yi gis nga yeewoo. ku ne yaa nga pause de jël benn pomme terre wala benn soble war a toog du ko xool li te mën a yaa ngi dërale kenn taalagu ko. te. Uh, bi ma toogee ba 11h gisuma benn man a tàkk man boo maa la wax lii man maa ni bëreet. te loolu Tiwaawan la woon. barke Sëriñ Bamba Tiwaawan. lépp fépp la. Eh, defante bi fépp la man maa ni bëreet taal ñaari mën yi man maa ko togg. ah. ñu naan leen murit baa ci biir dal bi waaw murit ci biir dal bi de. ma jug taal ñaari mbana yépp xale yi jigéen ñi ndaw xonk cooy posé ni loxo néegu ñoo yëkkati bant moom daa tax kenn màggal wala kenn gàmmu di lii du màggal kese kër diine yëpp la am kër diine yëpp la am kër diine yëpp la am ku ci nekk ak li lay yóbbu mm-hmm. ku dem pour gàmmo ji mm-hmm. yow gàmmoo la yóbbu yaa ngay dem pour gàmmo ji bu ko du jotee nga sañ sa ba jekk dem toog ca tànt ba dëgg la déglu jàng ya mm-hmm. déglu waaraate ga xam nga man lu ma gën a bëgg ci màggal dem ziyaara ji néew ya nekk ci Tuubaa Mbàkke ndeysaan ya tëdd nga xam ne daaw màggal si woon nañ dëgg la am na ñu màggal si daaw am na ñu màggal si daaw jéeg dëgg la pourquoi doo dox ba ca almeere muuru jàpp ba sell mm. ñaanal néew yi dem ca jumaa ja ziar mm. ñëw nag bu dee set nga it waxtu julli gi nañ ko ciy boole gis a euh, joomaa mm-hmm. li may zaayire yépp nag te mën wax di wax lu ma saf ndeysaan dañuy jaamu yàlla nag. dëgg la ci la bokk dañ ko ciy boole. ci la bokk jar naa bàyyi xel boole bu baax a baax a baax xëy dara jotu la nga dem da ngaa màggali ci Touba pause ngaa pause a pause ba munoo munoo julli benn waxtu. yow nga dem waxtu yëpp daal ci suur ya nga fa def te am na ñoo xam diri nañ ay valise te ci màggal gaag ba ci suba gaag après màggal gi kenn du ci dëpp sa jëb ci suuf taluñu ko. Mm-hmm. et eh, lu leer laa lay wax ah. parce mm-hmm. que Cheikh Ahmadou Bamba ma yaakaar. dëgg la daluñu ko. Hmm. ñu ngi leneen. ña nga ca defante baag yaa gën a teppee koog yaa gën a xuree koog amul sens. Hmm. ndax ku dem ren di nga xam ndax déwén dina fekkam déet. dëgg la te des fois nga départ xamoo di nga wàññeekoom déet. Hmm. nañuy defaraat toogaay yi ci màggal gi am na ñoo xam seen gan ba la ñoo ñibbi seen doole day jeex tàkk. te ko ci màggal nag ba ci suba ga boo fa amut leen looy def ñibbil. gan gi daa mitti. am na ñoo xam ne kalaasu joomaa gi dañuy daal di tëxët tëxët tëxët ni mbaam gu dee ci leer ni pàcc daal ba. ni la man damay jël sama taa ba ci kanam ñu déggu ma. dëgg la xanaa xamul bu ñu màggalee ba ci suba ga ñu bëgg ndeysaan gan yi dégagé wu ñu mën a tëdd moom seen bopp dañuy sonn. dañuy sonn dañuy sonn joomaa. xool ñetti fan ñeenti fan yaa ngi ci dat dat dat togg yàq baagante dem kii mais boo màggalee ba ci suba ga farata ga jeex na waa doo la nga am jotee te ñibbi duñ ko def kalaasu joomaa gi dañuy dem ni mbatt dàkk ci digg lal ba fukki lim ba ne fukki fan fukki ba ne hmm? ndax Touba léegi dañoo mànkoo macha allah néeg boo ci dugg saal boo ci dugg kilim ko ba mu sedd bu lal ba nooyee nepp na nga mel ni mboojam mbaay ni fàcc dem hmm. jaaxal ci digg lal ba da ngay toog ba ci kanam damaa sonn dama fi noppalee ko ba ci kanam te doo yëkkati bant boo xëyee tëdd fa nga tëdd fa la lépp di fekk fu ko teg fenn yenn kat xel la fenn soo màggalee ba ca suba ga sa yitte jeex na ñibbil mm. may borom kër gi mu reposé mën a raxasaat këram gi réglé ko mën a tëdd tuuti noppaleeku mm-hmm. waaye lu mat fukki fan ak juróom doo nelaw dafa doon ne Tuubaa gépp nekkatuñ ci jàmm ña nga ca bala yaag fomp yaag luqati yaag changé ya mais pourquoi ta boo demee yow doo am nag ngir yàlla jàpp ci liggéey ba ba liggéey ba màggal nga jeex nga takkaat ndànk sa bagage ñibbi waaye ràcc nag jëmale déwén ni yow ñibbeekoo am nañu gàtt xel ñoo xam ne bala ñu ñibbi dañuy mujj soof borom kër gi ndax ngan bu yàggee soof te dinañ dem une semaine avant màggal màggal dina passé dix jours wala une semaine après ñuy ñibbi vraiment métti na métti na mu rayal la mu rayal la ginaar suba mu rayal la xar ginnaaw suba mu rayal la nag ginnaaw waat suba mu rayal la giléem xam nga fu jëm ak yow ci mm-hmm. suuf bi ndax ngan ngaa mujj yàgg te métti màggal moo la yóbbu man Joma fu ma màggalee tubaa su ma xëyee ba ndékki buñ màggalee ba ci suba ga. su ma xëyee ba naan kafe man. oto bu ndaw Dakar nga may jëppee. moo da ngay dégg sax mag naan la gan ngan ñetti fan la yem. waaye ngan ñaata jours. ah dëkk bu metti bii avant trois jours wala quatre saa ñu taajal la loo xeeb. ah waaw wax dëgg neex yàlla ñi ñi ñi sonn nañ. commandé am na ñu baa doole nañ ma baal ci wax ci. Mhm. gis naa ci kër yoo xam ne balaa gan yi di ñibbi dañu mujj sonn du xel. dëgg la. ndax ku nekk xam na ne murit yi li ñu yoru yépp ci màggal gi lañ ko jëmale lii ñuy wax nii waxuñu ko kenn borom message bi nee na waa Jurbel la yaa ngi wax lu am am solo loo leen mën a dimbali rek parce que màggal si baax na waaye da gis ko xam ne day màggal ba nga ne gannaaw suba mu jóg ñibbi mun a def dafiy dëkkaat day toogaat fa lay dëkk yàlla fa lay toog nee na loo wax rek dolli te xam ne nit ñaa ngi koy dund ma ñu la mhm. ñun man ab murit laa pire dëgg la bëgg sëriñ Bàmba lool kafu ma ci réew ma ci. Mhm. mais dafa am loo xamante ni itam il faut ñu di ko nangoo partager du nangoo dégg dëgg. dëgg la joomaa. Mhm. gars yi nañu dégg dëgg. tey defar waat suñu demee jàpp ci liggéey bi lu waaye am yóbbu su màggal gi jeexee nga ñibbi. Mhm. dem ñibbi sa kër waaye nag ràcc fa nag jëmale déwén ni damay toog ba ci kanam te borom kër ga tarkalla ndeysaan màggal gi dañu yoroon yëpp këpp nañ ko ci du xel. dem noobalewaat waat une semaine. soo ko dangaal waate waaye am na sax ñoo xam dañ naa téppale ba nañu xaar gàmmo mooy kalaasu mbooja mbaay nga xam ne goroñu yettuñu laa nga fa la ñuy bëgg may yenn bu dee am nga métti sax waroo koo nangu te bu yàggee day daal di soof ndax ku mm. topp coow di daw guddeeg bëccëg subaak ngoon di daw di daw di daw di daw boo xëyee ni fàcc balewoo fompoo raxasoo yàlla boo yóbbaale sa dooma ku perantal ak ca topp métti mm. na yóbbu luy naam métti na yóbbu perantal ak topp ca perantal ba mm. teg fa ñëpp boo xëyee di sang di kuus kuus boo jël ba taxal ci duus bu duusu jàmbur yëpp buuse nga tëdd ci lali digg lali jàmbur te am na ñoo xam ne màggal ba màggal la ñu gis seen i jëkkër dëgg la ci la moodu moodu di ñibbisi mm-hmm. bu ñëwee mënuñoo jot seen jabar ndax gan ci biir kër gi moo soo màggale bu suba gën a ñibbil bàyyi borom kër gi nag mu wéet ak soxnaam si ndax solo na boppam am na solo ndax kii yi nee na moom li ko jaaxal mooy li ngay wax day mel ni moom ngay waxal ndax li da koo dund avant moo am borom kër nee na borom këru euh, kii la am murit mais avant moo am borom kër bu daan dem Touba li nga wax daan defaru toog liggéeyul dara. lépp dañ ko ko daan def waaye ba mu fa sëy jee nee na li ma doon teg nit ñi metti na maa ngi leen di baalu àq bu baax baax. mais li ngeen di wax am na solo. ah mi ngi noonu. Mhm. nit ñaa ngi koy dund ñun du ñu wax maanaam man li tax samay mbir métti. Mhm. man joomaa damaa bokkut ñi nga xamante ni dañuy toog di wax loo xam ne gëmuñu ko. dëgg la man lu ma la wax rek dafa dëggu ci man. Mhm. moo tax samay wax di métti di dëggër dëgg la comprendre nga dafa am loo xam ne kenn du ko raay. nee naa la bu ñu demee ba toog si dañuy wax dëgg ji bu ñu wax lu neex kenn. Mm-hmm. da lay neex nga déglu neexu la arrangé wala nga avancé. Mm-hmm. mais nañuy waxante dëgg gi dafa am jigéen yoo xam dañoo tëxet am góor ñoo xam dañoo tëxet yow tey ji fees bii kër goo dugg gis nga fa ay xaat ah. Mm-hmm. ay nit nga dem ca fees ba yow mi góor. jàpp ci yënga sa yaram tuuti xam ne yow Serigne Bamba nga ko liggéey dafa am un jour kas di ma dem di màggali Touba bi may dem passe cote laa yor. yoonu Serigne Touba yi ku ci ñam dara. Hmm. baaxee ko jaamu yàlla yi. Hmm. yokkute kese ci ne. maa la ko wax. parce que seen Ahmadou Bamba ñu ma yàq. te dama la ci mosal benn affaire ndax Serigne Touba nee na ñaari murit bu ñu àndee. que la gën a màgg lu Serigne Touba gi. Hmm. dala koy rawee ba at ma dellu si. barki Serigne Ba lu ci waaye jëf mu dëgg sa biir xol. barki Serigne Touba mu ñëwaat. billaahi wallaahi wa taalaahi. màggalu Serigne Fallou Mbacké gii. laa jóg màggal gi jot boobu amaguma tur comme nii ma fees del ay bor. ma fees ay bor lool yoruma lu dul 5000 francs. dëgg la may damay dem Kazu Rajab ci. ndax tey daal il faut ma gis sëriñ sëñ Fallou. Hmm. joomaa damaa jóg dem ba ci yoon bi ma ma romb borom ndékki li fekk ma yor téeméer ma jënd.